sama waaji ku la yaakaar doo ko benn Seex Musaa Jaxate ku la yaakaar doo ko benn sew tur du fay yaa gënu tur yaa gënu tur yaakaar jaa ngi ci Seex Musaa Jaxate ku la léemoo ku la léemoo bu rëbbee du soo billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi alladi hadaana li haada wa maa kunna linahtadiya lawlaa hadaana Allah allahumma salli wa sallim salaatan wa salaaman wa barakatan tahammali biha man faaqa sani min alxayraat warfa darajati wa miknati wa siti bayna naasi bi jaay xaadim rasulillahi sallallahu taala wa sallam waaw Cheikh Mouhamadou Mourtada ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant Mawlana Cheikh Al Khadim di ñaan suñu borom ki nga xam ne mooy xalifaam ci kaw suuf muy Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom dimbali ko ba mu teg liggéeyam Cheikhul Khadim bi te murid yeeg jullit yëpp am nañ yaakaar ci moom ndax taxawaay bi mu taxaw ci yoonu maamam yi xol yëpp sedd na ci kon ñu ngi ñaan suñu borom mu ful aw fanam defal ko ridan rahmatan barakatan di waral nag ñu yëkkati suñu kàddu ko jëmale ci bis boo xam ni bisub diine la bisub lislaam la muy bisub tam xarit yomal ashura bis la boo xam ne li ci xew ci diine ñëpp xam nañ ko lii wàccul ci kaw gaa yu baax yi di ay nattu muy kar bu Mouhamed jógee Màkka ji Madina muy bis boo xam ne saa bu jotee lislaam yi du ko fàttaliku ci mbaaxu suñu borom subhaanahu wa taala ci barkeb cheikhul xadim ak ndimbalu cheikh Mouhamadou Mourtada baaxe ñu ci waxtu nekk ñu koy dundal fii ci Grand Yoff ren la ci ñaar fukki at ak benn di ko ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe ci fàttaliku lislaam di ci jëmmeel Cheikh Al Khadim di ci fàttaliku gaa yu baax daaw dañ ko darajaale woon kenn ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu Seydina Aliou karamallahu wajhahu fekke wu ñu jëfam waaye dégg nañ jëfam xem nañ jëfam loolu moo waral ñu yëkkati bis ba dara jaale ko ginnaaw ñooñee liggéey liggéey bu sell boobu te dégg rek ñu boole ñoom ñu yëkkati bis bu màgg nii darajaaleen ko ren nag ma jël ci jàmbaar yi Cheikhul Khadim yi ci liggéeykatu Cheikhul Khadim yi kenn ku ñëpp mën a wax ni fekk nañ jëfam naw nañ jëfam jëfam yàlla gërëm na ko mu yàlla Serigne Batar su ma ko dara jaale bis bi ña xam pas-pasam dinaa dinañ xam ni delloo naa ko koo xam ni yàlla gis na jëfam rasulaay gis na jëfam cheikhul xadim gis na jëfam ku mu jamono teg ci waa kër Sëñ gis nga jëfam man miit fekke naa jëfam kon nekk na jëmm joo xam ne saa boo ko delloo njukkal Sëñ Tuubaa yëpp ko booy delloo booy tudd nit aw tur nag na fekk mu liggéey ba dem jikkoom ñor la ngay barkeelu ci jikkoom loolu mooy aw tur booy tudd nit bisit na fekkam jëfam weesu jëf ja yàlla gërëm ko nga jël jëf tudde ko kii nag du ma dégg naa jëfam naam dégg naa jëfam waaye fekke naa jëfam mu taxaw taxawaay bu mat ci yoon wi daane wax naa yoonu Cheikhul Khadim inspecteur laa ci liggéeyal yoon wi lu ko yàlla gërëm waaye bis bi moom mbóotum bis mi kenn moom kuru sëñ Fallu sëñ Fallu mooy mbóotum bis mi waaye ki ma taaree bis bi nag dara jàlle ko muy El Hadj Sëñ loolu nag maa ngi ko yëgal ki nga xam ne mooy xalifaam di Sëriñ naa Gueye di ko yëgal ki nga xam ni taawam la muy soxna Ami Gueye ko yëgal njabootam gépp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp di ñaan suñu borom mi fam daan jaar buñ fa delloo mu jaar fu ko raw ndax bis moom bis yi bari na te bokkul am na bis yoo xam ni tegul ci pas-pas waaye bis bi romb naa tegu ci pas-pas bis bi dafa bokk ci keno yi bis bi dafa bokk ci bis yi nga xam dañ ko nungu bis bi buñ doon tëdd di nelaw ba waxtu wajal sax buñ jógee def ko ndax lu yàlla nungu rek dem na bis yi leetar di jagal bari na bis yi nga xam ne yaakaar ci keneen ku dul Sëñ di jagal bari na waaye li jag te sax nga xam ne boo fi jógoon sax mu wéy barke Sëñ Tuubaa rek mën loolu te bis bii dugg na foofu bis bii dugal nañ ci bis ba nga xam ni ca yi nga xam ne tànk àdduna ngi dox mi dox tànk tam xarit a ngi dox sama bis bi di dox loolu nag ka ma ko seeral xam naa ko bis la boo xam ne ay lettre defu ko bis boo xam ni bisu pal la bis la boo xam ne bisu paju aajo la waaye sama baas bii nit dina fi defaroo ba faw sama baas bii nit dina ci faloo ba faw sama baas bii mën naa fekk loo xam ne musta mus doomu aadama mus ko yaakaar ci àdduna bis bi defal ko ko fu man mi man mi ko wax nag fa ma ko wax man Cheikh Mouhamadou Moustapha Diakhaté xam naa ko kii ma tudde bis bi daana wax naa mbootum tabe bi naan Hakim sa borom jox na ko ñetti at laalu ko daana wax naa may razail murtil fadail moo leen manazil badala fay grade la bu rasul ay takkoon moom lañ ko teg jamono kon bis bi daal bisu lislaam la bisub kaw la bisub suuf la bisub biir la bisub biti la ñu ngi ñaan suñu borom it may taaw lépp ci barkeb Cheikhul Khadim te lu yàlla gërëm lépp nag mu ngi ci teekum suñu tubaab mu téye lépp lu waay naanati te muy egg ak fii nga am jëm sëntuwaat Tuubaa ci suuf sëñ Tuubaa ne ci kaw kon nag euh, Mouhamadou Mourtada lii rek mooy wàccaay wi te du génn d'islam waaye bëgguma ñu xemmeem ci dara lu sëñ Tuubaa lu mu taaru lu mu rafet bëgg naa ku fi ñëwaat yëgaat ne sëñ Tuubaa amul lii moo tax ma jox mu saadiq bi lii moo tax ma jox ki nga xam ne rijaalullaahi la lii moo tax ma nga xam ne jikkoom ak melokaanam ak doxalinam man mën naa seere jikko ji rafet la kon Mourtada lii rek mooy waxtaan wi li ci des la bu ñu eggee ca jamono jëm nga war a ñu koy yaatal ci télévision yi incha allahu taala maa taalib yi danañ ko ànd dafa ndoo ko incha allahu taala lépp ngi dox ci laa ilaha illa allah waaye bu bëggee yoon wu ñu gërëm nag la ko jaarale Muhammad rasulullah